jërë ngeen jëf mbokk yi ñuy seetaan ci wasaare làmb mbokk yi nuyooti nañ leen am kontante ak mbégte comme ni leen koy defalee saa su ne euh, bërki démb gis ngeen la xewoon arène nationale journée bi nga xamante ni Ndiaye production moo ko organisé woon ci njiital ba di Fallou Ndiaye euh, ñu toog ak champion bi nga xamante ni moom moo jëloon léger bi muy Kaaw Gourdin boo ko tuddee xel dem ci Dalifor boo ko tuddee xel dem ci croisement Cambérène boo ko tuddee xel dem ci. dëkk yu bëree bëri yoo xamante ne xale bi mu ngi fay dem di compétir keroog compétition bi moom moo génn final bi gannaaw loolu dañ koy bàyyi mu nuyu mbokk internet yi su ko defee ñu wéyal waxtaan bi waxtaan Kaw Gourdin waxtaan ci lu bëree bëri mbër maa ngi lay nuyu di la siyaar waaw auzu billahi mina sheytaan rajim bisimilahi rahmaani rahima ginnaaw bu ñu sant yàlla di julli ci yonent bi di sant sunu ñaari waajur di sant sunu sëriñ sëñ Abib si bi ma di sant bépp njabootu maam Alaaji Malick rek ah di sant waa Dalifor bu baax a baax a baax waa wasaare ñoo leen di nuyu baat yéeli ñoo lay siyaar rawatina waa Dalifor ah ñoo leen di siyaar bu baax a baax a baax. Ah. Euh, Kaaw ginnaaw bi Covid bi amee euh, toll nañ ci presque dugg na ci un an yoo xamante ni benn activité làmb amul euh, keroog bi ngay ñëw arène nationale moo nekkoon sa première sortie. non non Baye Djily ñun boo xoolee ñun commune bi ba muy commencé ba nii nii ñoo ngi entraîné mm-hmm. ñun mosuñu toog mm-hmm. ñu ngi doon ne chaque jour yàlla xam na ko dañ doon ne chaque jour te suñu première sortie Gambie la mm-hmm. ñu dem am nu mu demee ñu ñaax. ñu jigaat foofu am fuñ demaatoon yàlla def ñu daanu foofu final. waaw ñu waajalaat ñëwaat waajalaat. ñu dégg Fallou Ndiaye am na lu muy teg. ñu dem fa xool essayé yaa ma gën a xam suñu borom mi dara tawul kàttanal ñu ba ñu réussir ci quoi. Mm. kon daanaka def nga trois sorties trois sorties bi njëkk fan nga toogee. bu njëkk euh, fee laa toogee premier tour laa toogee Gambie. Mm. waaw Gambie. nga toog premier tour. waaw compi continuer waat xam ni compétition la ñëwaat dem finaal ñàkk ñëwaat demaat final bi nga demaatee final est-ce que xalaatoon nga arène nationale keroog bi nga final est-ce que xalaatoon ni mën naa ñàkk final bi parce que final bi passé dama ko ñàkk. no même pas xalaatuma ko wax dëgg yàlla parce que euh, ñu ma ñu ma jot daan avant maa yegg final ñoo gën a garaaw waa ji ma dajal final noonu la demee te aw ma ci benn pression wax dëgg yàlla nu ma bëree ci premier combat ba ci final bi noonu dong laa bëree aw ma leen lu ma ci changé quoi. dàq bi lan la koo bëree la joxañ ko baaraam ne ko ñibbi xanaa loolu mooy bul ñëwati ci làmb ji ndax moom. waaw ci deux mille vingt et un lañ nekk te mbër dangay ngay innové innovation la lu ñëw suñu xel la rek ñu def ko te incha allah dàq boobu mooy dem de incha allah. <laughs> dàq bi booy dem. incha allah dàq bi moom lañu bugg a yóbbul sama yeneen trois gars yi. ci tournoi bi waaw. <laughs> est dina yóbbu nga dàq. waaw ci kàttanu yàlla yàlla bu ñu mayee kàttan moom dañuy dàq de waaw incha allah. nga dugg ci tournoi boo xamante ni euh, may nuyu bu baax a baax sama waa ji borom ñu ngi production euh, mu organiser tournoi boo xamante ni ñi ci boole ay xale lañ mais ay xale lañu yoo xamante ni mën nañ bëre macha allah am nañ mbooloo am nañ ginnaaw boo tuddee Kaaw Gourdin tudd Yankaaw tudd Caatu Daawda Fall tudd Albarka Kayre nga xam ni ñoom ñooñu ñëpp ay xale la ñoo xamante ne làmb am nañ ci ñoom yaakaar compétition boobu ku ci génn war nañ laa mën a dégg ci kaw tey lan nga jàpp ni euh, loolu moo leen mën a génnee ci compétition bi ngeen daan ci ak am manière waaw santaat yàlla rek parce que sunu borom mooy xool lu ko neex tamit mu koy dogal ci jàmm parce que yaakaar naa amaana bu ma daanoon deux giga duñ ma boole ci tournoi boobu mais ab cant la da ngay daanu ñu dugale ci kalaaf mooy wane ni rek sunu borom am na lu mu la bàyyil ci làmb ba léegi te incha allah lépp lu mu war ci tournoi boobu dañ koy def lépp lu mu laaj ci kàttanu yàlla dañ koy def. Hmm. incha allahu rabbi. tournoi boobu su ma yoroon tirage bi nii ne nii yëngal. génnee na la jëlal benn tour boo bëgg a dajal. tour bi nga bëgg a njëkk a dajal ku may doon. waaw loolu moom yaakaar naa sentu asamaan sentu asamaan moom jarul buuxante man ak yow ñooy wax am na ku ne sa xel koo xamante ni moom boo sañoon moom ngay njëkk laaleel coow lu jeex am bu dee amul non nga xam xamante ne am na am wala amul léegi dama bëgg bëgg nga bañ a wax am wala amul non day am day am am na nga xamante ne mënul ñàkk da ngay da ngay teel a libéré ak ñoom tellement que nu nu nu waru nekk galaa quoi. Mm. dañoo dañoo doon dox sunu combat ñun ak ñoom. Mm. combat bi antuwul après galaa bi ñëw. Mm. amaana yàlla baax na daal bu ñu yàlla may fekkee ak tal ñoom ñëpp dañ leen di dàq ci kàttanu yàlla. xanaa du du du du du albarka kayre la de. non parce que yéen ñaar dafa mel ni da ngeen a xiifante keroog maa ngi gis bi ngeen toogee yéen ñaar yéen a ngi kiyante. di di lan moo ne seen diggante yéen ñaar. non mosuñu am yenn rencontre yi quoi wax dëgg yàlla lu dul ñu bëre ñu daje ci làmb mu ñàkk wala ma ñàkk hmm. mais xam nga moom làmmiñ bee bari quoi moom day wax rek. waaw mais am na ñoo xamante ne nag loolu mooy seen slogan. Hmm. xëy na lool ci slogan slogan am la bokk. Hmm. dañ ko koy nangul wax dëgg yàlla mais. làmb bu neex la de maam moom. yow boo sañoon tirage moom dañuy génn rek man bëgguma ko am heure bi sax waa dëgg yàlla. dama ko bëgg am final bi parce que pël la mooy pël ñun ñaar dañoo am ci ñu bokk quoi te ci final bi dañ ko war a wone. dañoo war a wone loolu. waaw kenn ku ci ne xam kenn mooy pël photo original bi hmm. <laughs> waaw. te yow da jàppale yow yaay original bi. maa ko gën a nekk original loolu dafa leer de man ci ndey ci papa. billaay wallaahi kon original la kooku Ahmed Ba la sama xarit bi boutique sama boutiquier bu baax bi euh, mais fi mu toll nii actuellement ñoom xale yëpp ñi nga xamante ne gis nga leen ci compétition bi euh, ma njëkkee ko ci albarka lan nga gis ni mooy point fort am lan la ëpp lu muy bëree. non albarka Kayra moom wax dëgg yàlla bu mu la waxee dëgg bàyyi jili ñoo ñëpp man seetaanuma leen. mosoo seetaan lu dul ñu daje làmb xanaa albarka combat bu mujj bi moo ko. Mathia Pereira numéro 2 boobu moom suivre naa ko. combat bu neex waaw combat bu neex bu metti wax dëgg yàlla mais xam naa ni maa moom bu ñu dajee moom bu dëgalee boppam du yàgg de parce que xam na ma moom xam na ma bu baax. waaw wax jee fi nekk mais kon yeneen ñaari gars yi moom ñooñu moom jotuma leen seetaan quoi. yaa ngi kaw seetaan combat non non non man ñooñu bu nekkoon kalaaf sa jom Iba Mar la bu nekkoon kalaaf bi du xam yàlla xam na ko. xamoo ci kenn. billaay wallaahi bu nekkoon kalaaf bi duma ci xam kenn mais sunu borom mooy dogal lu mu dogal na dañ koy nangu dañoo daan ci deux ziga xam nga mu nekk sampion mu daan ñu ñu ñëw dugg ci kalaaf dañuy ñaan yàlla suturaal ñu rek ñu génn ceeg neuf points. dinaa ñëw ci sa diggante deux Ziga ndox duma la bàyyi mu seddee noonu Thiatou Daouda Fall gis nga ko njool la boo xamante ne macha allah taay bi baax na. loxo yi day dox. te jàpp na ni moom ñi ci nekk ñëpp ci compétition moo ci gën a doon xale ku yëngu da lay nga wàcc moom lan mooy forum mos nga seetaan combat waaw seetaan naa ko parce que mbapat bi ma demoon Gambie mooy woon foofu man maay woon foofu waaw macha allah mun na bëre de idaali moom ay ndaanaan rek la boole de wax dëgg yàlla ay ndaanaan ay ñi nga xamante ne dañoo nekk ci yoon ñoom la boole mais ci kàttanu yàlla bu ñu yàlla may fekkee ak rek ñoom ñett ñëpp dama leen di dàq ku ci nekk parce que ñoom ñëpp dëkkuñu fi. nii rek ñëpp dañuy dellu fu ñu juge ah. waaw ci kàttanu yàlla. ku jëm si mbëjun nga yebal. daam lu ma koy ñoom ñëpp kay déggoo ma dàq bi moom faw mu dal ama dàq bi daa ñëw fekk gourdin bi mar. nam mu dóor nam mu lépp waaw mu boole koog dàq da lay dóor ba pare dàq la. <laughs> mais kaw am na solo ñu ñëwaat tuuti parce que dafa ah. mel ni defet am na njariñ ci mbër. Mhm. non bu baax bu baax man sama compte ma ak 2 Giga defar na ma de wax dëgg yàlla tax na tamit ñu bari xam ma ñu bari bëri. billaay wallaay na yow yaakaar naa ci làmb jooj nga xamee. Hmm. am na ñeneen ak ñeneen ñoo xamante ne ci làmb jooj lañ ma xame waaw kon tamit sant yàlla la sant yàlla la rek parce que am na lu mu yàq ci sama ci sama carrière dara. mais am na tam lu mu defar ci sama carrière parce que tax na ma xam bu baax quoi. bi ngay jël 2 Giga xamoon nga ko est-ce que. non non suivre ma ko. bàyyi jili isa ma ni man bëri naa lu ma six combats jouru làmb ja laay xam sama adversaire. six combats yàlla xam na ko. jouru làmb ja laay doo xam sama adversaire. moo tax te boo tàmmee compétir ci mbapat yi yooyu noonu du la jaaxal quoi amaana nag moment bii làmb dafa toll fi nga xamante bu buñ la joxee mbër nga xam ko quoi bay laaj loolu waaw mais ñoo ngi ciy ñoo ngi ñoo ngi ciy ñoo ngi ciy liggéey bu baax quoi ñu ngi ciy liggéey bu baax est jotul fi mu toll nii balaa ngeen dugg ci benn combat. wala balaa ngeen jël benn adversaire ngeen xam kii lan mooy fooram lan mooy faible du ragal mais affaire sport la boo xamante ne pour nga professionnaliser. sa sport tuuti faw ngay mën di xam loolu. pourtant wax naa la ko léegi nee naa la moment bi làmb dafa toll foofu noonu. mo adversaire seetaan sa adversaire mën a travailler ci ay faayam. te loolu yëpp ñoo ngi ci ñoo ngi ceeg sunu père muy tombe seen macha allah muy sunu papa du sunu ci yoon bu mu ñu dig fu mu awloo fa la ñuy aw wax dëgg yàlla. Hmm. yaa noonu la demee. jaral bi nga ñëwee ci ci combat bi arène nationale euh, mën nga ma expliquer sa combat yaa ak 2 Giga ban erreur nga def ba 2 Giga daan la ak nan nga bëreeg moom ba mu daan la. waaw erreur bi ma def euh, ci contour ma ak 2 Giga hmm. gëm naa ne dama waroon daanu nag de waaw dama gëm ne dama waroon daanu jour boobu hmm. mais moom lu mu def man loolu laa waroon def. moom lan la def. mooy mel ni ku ma ragal di daw rek fu mu taxaw ma ne gourdin bi da ko war a dal wax dëgg yàlla heure boobu laa def ci làmb ji te heure boobu maa ko teg sama bopp quoi nekkul samay staff nekkul sama encadrement waaw loolu maa ko teg sama bopp ko kon ndeke mbër dina teg stratégie wane nii damaa ragal te alors que ragalul pour pour mun a aspirer adversaire am pour mun ko daan. bien sûr sunu père da ko yeboon nag ko hmm. muy père Birahim parce que xam na ma xam na ni bu taxawee centimètre bu mu mu ma ko yéegee damay jàll de moo tax xam nga déglu daal am na solo quoi. waaw déglu am na solo quoi parce que man xam naa ni laa mujjee ñàkk déglu moo ma daan. Mm-hmm. yaa ngi waajal euh, jàkkaarloo bi nga xamante ni war naa am euh, le 10 fële ci arène nationale euh, nga war a laaleeg yeneen bëri mais dañu war a tirage surtout loolu nan nga koy waajale waaw waaj rek ñoo ngi waaj bu baax Dalifort fii moom champion yàgg na fay génn quoi rawatina bu ñu amee bis dañoo jóge ci bis lii nii ñëwaat sunu kanam kon tamit dañuy ñaan waa Dalifort ñu waaj rek xam ne le 10 moom incha allah ñoo ngi joxe rendez bu arène nationale waaw ci idaal yi ñi nga ñu tirage kenn ku ci ne xam fooy féetee waaw. boo doon ñaax promoteur bi pour mu yokk. lan la leen war a yokkal ci seen làmb jooju ak lan ngeen bëgg mu defal leen ko ci parce que làmb ji du làmb ju ndaw laaj na promotion laaj na jaay làmb ji surtout xale yi ci nekk moo tax. non bien moom lu ko war ci làmb ji xam na ko mooy. mu wax ak ñi mu war a waxal rek parce que làmb tey ji dafa toll fi nga xamante ne foog nga wax ak ñi nga war a waxal. pour pour pour làmb ji am fu mu toll. bu nekkee danga ko danga ko téye sa bopp rek pour pour làmb ji yegg fenn du yomb quoi. mais ñun moom ci kàttanu yàlla lépp lu ñu war dañ koy def pour làmb ji am ampleur ci côté bépp nag ko waaw incha allah. Euh, ma lay jaajëfal bu baax a baax di nuyuwaat sama papa Père Birahim ndax démb la ma woo ne ma seetaan naa sa diggante Kaaw Gourdin mais da ko war a jëli ba ko suba kay ba jëli ko Père suba rek ba jëli. moom moom sunu Père la wax dëgg yàlla di ko ñaanal wër ak wërle gudd fanaa ah. moom sunu papa la wax dëgg yàlla mosuñu am relation toog nii nag mm. yàlla mu ñëw xam nga rek yaa ma gën a xam mais wax dëgg yàlla loolu daal lañ koy ñaanal yàlla bàyyi ko fi ba ci kanam rawatina ak mboolem kilifa yi nekk ci dëkk bi yëpp kilifa diine yeeg kilifa aada yëpp daal ñoo leen ñaanal wër ak wërlee waaw di bëggee tam waa Dalifort bu baax rawatina waa Fatick ah, ak waa Njaanjaay amuñ seen fay waa Nguy Aline Sela amuñu seen fay waa Mbour sama gaay yi fa nekk ñoo ngi leen di siyaar waa Passy Kaolack ah Touba. ah ñu fay sama sama sœur yi fa nekk waa Nguma Ngeewul waa Kel. ñooñu bu ñu ah, ñoo ngi leen di woo waa Pire. Ah, waa Pire tam ñoo ngi leen di woo di leen wax nañu waaj bu baax. parce seen doom mu ngi waaj. waa Kër Masara ah, tamit nañu waaj bu baax a baax a baax xam ni seen doom a ngi waaj ak waa arène nun la sama gars yi fi nekk saala saala yi ah amuñu seen fay waa Mbartal mi gaa yëpp. waa Maroc nag ah sama gars yi fa nekk waa arabe saudi waaw sama gars yi fa nekk ñoo ngi leen di bégee xam nga yaa ma gën a xam waa Espagne diaspora bi ah ku ci mel ni ñoom Thier ah ñoom daa hmm. waa Belgique ñoom bëgg falo ah, ñoom koso hmm. jib waaw yaa ma gën a xam galaa bi xam nga fu mu ñu war yobbu bu baax di siyaar tamit waa koñ bi ñu fi nekk ñëpp xam nga yaa ma gën a xam Diop Fall euh, Baye Diop Baye Diop sunu Moussa ñoo ngi koy bégee bu baax a baax moom tamit sunu président di Boubacar Cissé tamit ñoo ngi koy bégee di ko siyaar ak ñi euh, ñi nga xamante ne ñoo ngi ci staffu école de lutte Dalifort bi yëpp ñoo ngi leen di bégee ku ci mel ni Mbodj amuñu fayama ñoo ngi koy bégee bu baax moom tam. waa gaale bi tamit ah sama sœur yi fi nekk ak sama jabaru frère yi fi nekk tamit ñoo leen di bëggee bu baax a baax a baax ak waa koñ bi yëpp rek ak euh, sama gaay yi may àndal maanaam ma lu dul ñoom muy sama mafia bi kalamanaas ñoom xam na lu may wax quoi ñoom ñoom maak ñoom ba faw yee Oli mu ngi nee toog moom xam sama rakk la ak ñeneen ak ñeneen mais balaa mu mënoon gën a neex nag nga ñëw Ikiri ba xam la nga xamante ne moo fa ne. moom danaa fa ñëw parce que balaa combat bi am na promotion yoo xamante ni war nañ cee ànd ak promoteur bi Idaly ñu ngi te incha allah rabbi dinañ ci gën a liggéey leneen lu loo xamante ni làmb bokkul ak li ñu daan gis ci làmb ndax euh, vraiment am na lu ñu bëgg a wane ci wasaare làmb incha allah. non mooy yoon wasaare làmb ñun dañ koy seetaan am sam benn gaayan bu nekk fii u seenu fay hmm. moom du seetaan leneen lu dul wasaare làmb tey ba mu ko nee waa wasaare dañ fi ñëw mu ne ma oo oh, waruma moo xëy yàlla xam na ko moom da leen di bëggee waaw parce que seen liggéey macha allah dafa rafet quoi. kon tamit yàlla na leen yàlla jàppale ak yeneen sites yu fi nekk yëpp ak tele yëpp xam nga yàlla kàttanal leen bu baax a baax a baax ci barke yonent bi aha Ousseynou Faye doo ko rëccu de ak wasaare làmb incha allahu rabbi mbokk yi noonu la demee euh, euh, euh, Kaaw Gourdin lañ dalaloon fas yéene waxtaan ak moom ci lu bari ci làmb waaye la duuf ci nag bi xajandowul ci cin bi xam naa ni am na leneen lu ñuy waaj incha allahu rabbi ak promoteur bi daali ñi nga ak ñoom ñi nga xamante ne ñoo bokk ci tournoi bi incha allahu rabbi di leen jox dig dajeeg ba ëllëg incha allah ci beneen xew-xew làmb mbër. rang rek muy gaaw jaajëf.